kay yegg si nañ ci fas yéene cee dalal euh, Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Abdoulaye nag suba si ñu ngi lay ziar alhamdulilah di la ziar baax a baax. am na ci solo Walf Quotidien lu ñu xëyee tey. Walf Quotidien dafa xëyee amal ab taxaw seetlu jamono ak Sénégal jamono ji nee na bu doon gàll la. Mhm. Sénégal jamono ji amul capitaine. oui yéen a kaay gi moo xëyee fësal lu ne mel ndax bu dee président Macky Sall tukki na. Amadou Ba jamono ji mu nga ca France ànd ak bi Mame Boye Mame Diop mi nga xam président assemblée nationale tukki na. Mhm. yéen a kaay gi neexul ba ne waaye fu mu la ñuy jaaree ngir mën a yore réew mi noonu la ko yéene euh, gi direct news yéene kaay gi ngi teg ay jéego jëm ci élection maanaam bu ñu paree ci élection yi mhm. noonu la ko yéene kaay gi direct news xëy fësal yéene kaay bi di Dakar Times yéene gi di Dakar Times ne ay euh, Borna mooy premier ministre Euh, bu réew France moo dalal kii di Amadou Ba euh, mu soxal euh, élection maanaam mu ngi jëm ci 2024 yi dëgmal mm-hmm. yéen kaay gi nag waxtaan nañ nag am na ci ay lépp ponk yu bari yoo xam waxtaanee nañ ko lépp kon mu ngi ci yéen kaa gi di Dakar Times nango critique ci xëtam critique moom dafa xëyee amal ab ñëw di nga xam leeg la nga xam moo nekk ci ginnaaw wala moo laqatu ci gi tànki nemmeeku yi nga xam ne Amadou Ba mu ngi koy amal jamono ji fële ca Paris neen daal nee nañu leen tax daal mooy fexe ba lépp loo xam ne coopération la woon mu doxoon ci diggante ñaar réew yi ñu jëm xoolaan la ko lañ koy saytoo gën koo dëgëral noonu la ko yéen kaay gii di critique xëy fësale yéen bi di la soleil génn ko fa tamit la xëy dellu siwaat coopération Sénégal la ñuy def ba nga dëgëral euh, relation yi dox ci diggante Dakar ak Paris loolu moo li tax a jóg euh, ndaje moomee. ngoog euh, Seydina ci ay projet yoo xam daañu fa waxtaan waaye tamit bëri na ci ay milliards yoo xam ne nii daanaka président réewum ko jël dugal ko ci réewum Sénégal noonu la ko yéen gi dina kenn xëy fësale yéen gi na am na daal lu ci tolloo juróom fukki convention ak juróom benn yoo xam ni réew mi di réewum Sénégal lépp daal bu ñu ko xaymaa toll na ci junni milliards yu teg juróomi téeméer ci suñu koppar noonu la ko yéen gi di lanket xëy fësale yéen bi di réew mi côté jamono jooju le soxna Mimi Touré ma ngay ñaawlu taxawaay waa Matignon maanaam taxawaay jëwri ñi nga xam ne ñu dénk wàllu euh, politique bitim réew fële ca France moom dafa jàpp ne Euh, waxtu wi du waxtu wi gën pour mu dalal kii di Amadou Ba ndax Amadou Ba jamono ji candidat la te dafa am ay nawleem yoo xam ne la yekkal fii ci biir réew mi bon du yoon ko ñuy doxee tànk yu ni mel xam ne daal fu mu toll nii France mu wane ni seen pété ba noppi ñëw noonu la xëyee fësal dafa xëyee lu am solo te mooy Karim Meïssa Wade mi nga xam dañ ko fay tuumaal tax ñu tëj ko kaso fay loo ko lu solo ak téeméer ak fanweer juróom-ñetti milliards ci koppar waaye bu ñu sukkandikoo ci waa DGE moom Karim Meïssa Wade mi même bu fekkee ne sax remboursé wal xaalis bu bëree tig war naa mën a bokk ci yéen élection tax yéen kaay gi dal mandat xëy ci fësal njàqare gi mu ci am noonu la ko yéen kaay gi dal mandat xëy fësal leneen aussi loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy tekk tekkaar yi nga xam ne nii Idrissa Seck mu ngi ko nekkee jamono ji ndax tekk tekkaar kese la wala dafa am leen lu mu ngi ci yéen a de la mandat. donc euh, bi. ñii ay détenus politique la ñoo maanaam ñu ngi fare ci parti bi di eh, ay mhm. détenus ñu la duppee. ñoom ñëpp nag euh, ñu ngi yëkkat seen kàddu di wax ne élection présidentielle di ñëw dañoo bëgg woote comme ñëpp noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale ndax ba fii daal àtte wuñu leen ngir ngir mën leen tere ñu bokk ci élection yi lée ku ci mel ne Aliou Sané ba ci met benn talab benn talab sow loolu la ñu sàkku mhm. mi ngi ci yéen a kaay gii di yor yor donc Ba 24 euh, Cheikh yàgg na seen i kàddoon di ñaawlu décision bi nga xam état bi jël na ko daal di tëj campus campus universitaire yi nee na neexul ba neexul état bu Sénégal ñu nekk di sacrifier euh, lu ga xale yi mm-hmm. moo tax nag ñu yëkkati ay kàddu di sàkku ci état bu Sénégal mu deltu ginnaaw ci décision bu ne ko deful njàng mu kawe mi dana sooxee fii ci biir réew mi noonu la ko yéene kaay gii di 24 heures xëy fësal ngoog ne 2023 2024 at boo xam ne dina ko compliqué lool ndax boo xoolee ñaari weer euh, gannaaw ba ubbee école yi ba léegi ñu ngi jëm ci élection yoo xam ni fu mu toll nii dañu nar a natt ay centrale syndicale euh, buñ ci ñu jëmbee daañu dem ci coupe d' afrique des yi euh, fileeg benn weer. Mhm. tekki tamit fileeg benn weer daañu door li nga xam moo di campagne électorale yi.

Seydina Omar Ba l'évidence wax ci détournement yi nga xam ñu ngi koy nemmeeku saa su ne fële ci crédit mutuel du Sénégal yéen kaay gi bu ñu deful ndànk crédit mutuel ci daanu la jëm chaque jour nga dégg fa ay njunjaaj bi ci mujj rek mooy euh, juróom ñe juróomi téeméer ak ñeent fukki millions yi nga xam ne ni moom la ñu fa détourné noonu loolu la ko yéen kaay gii di l'évidence xëy fësal. donc l'info lu mu fësal. liggéeykat ya yëkkati nañ seen kàddu quoi. ñoom liggéeykat yi fa ne mm-hmm. saisir ministre des finances mu wax ci parce que bu ci waxul caaf dina xam noonu la ko yéen kaay gi di lay foo xëy fësale yeneen kër gu nekk si ay jafe-jafe moo di ñu ubbee campagne bu fa benn doomu gerte mm-hmm. muy situation bu jéggi dayo tax gars jàpp ne lii muy lii Sonacos dund jamono ji bu fekkente état bu Sénégal jël si ay matukaay boo moytu kër gi di Sonacos ci daanu la jëm noonu la ko yéenekaay gii di bés bi xëy fës le quotidien lam maanaam mbëkk mi Frontex nag yëkkati nañ si ay kàddu wax ni lu ñu tolloo ñaar fukki junni ak juróom-ñaar yu teg juróom-ñaar téeméer doomu aadama bàyyi ko fi ci dugg nañu ci euh, biir Union européenne ci biir ci diggante janvier jàpp octobre waaye nag ñi ci gën a ràññee ay Ivoirien lañu am na si ay gine am na si ay doomu Sénégal noonu la ko yéenekaay gii di le quotidien xëy fës yéenekaay bi di stade lam ñu dégtal dañu war a tànn. Ah. Mhm. soor bi daq football ci Afrique. football ci Afrique waaw ci lañ jëm nii. Mhm. waaye li gën a doy waar mooy que bu def ah, depuis 2016 ba 16 ba tey. Mhm. Sénégal amu ci ab man amuñ ci jour. bu amu ci jour bu ci bi bu maanaam podium bi duñ ca yegg. c'est ça. amu ci amu ci benn jour muy nag loo xam ne bu leet la. ma ngoog li nar a am. combat Bombardier yëkkati na ay kàddam daal di xamal ne. rek rek dafa sonn rek waaye. waaw combat bi.